dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. kilifa yi lu bari ci ñoom daf leen a neex ndax wayaankat yi nga xam ne ñoo leen di topp di leen taggal seeni maam te seen maam yooyu ñu leen di taggal. laale wu ñoog dara sëriñ bi ñu ngi di tuddal sox ñoo xam ne bokkuñu ak ñoom dara dañ leen di nuróoleeg ay buur di ñoo xam ne bu ñu xamoon ñooñu duñ bëgg a ñoom ñu koy puukare di ci seen biir di ci concurrence ñu yore rajo di leen topp dañuy dem ba xeeb la yori bool dem ba xeeb loola yori bongo dem ba xeeb loola yori yori yori yori xiin kër kilifa goo dem fekk leen kër kilifa goo dem fekk leen barki démb bi président ñëwee rek. biñ koy wan yi ña nga di ko jël di ko filmer di ko wane yooyu nag moo fi indi di fi xew kon faw ñu nit ñi te mbir mu mën a doon it bu ñu koy saafara ñu bañ caa làq-làqal dara te seet fa reen yi nekk ñu dagg ko ndax ñoom jëmm yooyu yi nga xam ne ñoo fi xewal mbir yooyu yi accès yi ñu ci kilifa yi kenn amu ko fa leen kilifa yi teg kenn tegu la leen kilifa yi fa leen kilifa yi féete kenn féetewu leen fa leen kilifa yi di digloo digloowuñ ko keneen kon ndax loolu dana fi mën a jógee ca dëgg-dëgg daa gu mag démb ñuy waxtaan mu ne ma li ñu aaye moom baax na suñ yàlla na ko fi yàlla yàggal te dëgëral ko jàmbaar la waaye nag ñun ñi ci des war nañoo xoolaat baax yi muy aaye dafay aaye musique war nañoo fexe ba bu fi ab musique sañ ñëwatee ñu bañ ko recevoir bi musique seen ñëwatee bu mag buñ ko recevoir ba mu xam ne lii bëgguñ ko te bëgguñ mu tàmmal ko xale yi dañ fay aaye football nañ feex ba footballkat yi xam ko ba xam ne fii moom bu seen barab dañ fi aaye carte que yilif lonaas ya ca aju nañ fexe ba bu fi ñëwatee ñu bañ ko jox benn wàccuwaay waaye naka la ñuy aayee yooyu te ñooñu buñ ñëwee ñu jox leen valeur ñu am accès teg leen ca kaw te yooyu dañ ko ay ci dëkk bi loolu ci dëgg-dëgg bokk yi bu ñu xoolee xel moom du yii ñuy aaye yu mat a te ki ko aaye mooy ki ko war a aaye waaye nañ fexe ba minimiser ñi nga xam ne ñoo ca doon ay vedette yu ñuy roy lépp ci ñoom ay ay murid lañ nee nañ lépp ci ñoom ay taalibe lañ ndax jàppuñ ne waroon nañ leen a mën a woo wax ak ñoom ba bu fekkente ne sëriñ bi ñuy mbubboo dëgg la ci ñoom te ñuy tënku ci ndigal ñu ne leen loolee nañ ko dagg ba mu set wàcc te seet leneen luñ liggéeyee ndax loolu waratoon a mën a nekk am loolu ñoom seen daraja du ko ëpp da ko weesu am dañoo bokk ci taalibe yi ñuy aaye nii ñuy aaye sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir yàlla ko fi yàlla yàggal am na ci ñoom taalibeem boo xam ne wax nañ ma ne ba mu dikkee ci moom ba ko ko aayee moom la ko nga xàcc seeti beneen sëriñ dem jébbalu ci moom waaye moom ba dikkee ci moom da ko wax la mu xam mbëri làmb yi dañ fay aaye fut dañ fay aaye bëri waa mbëri làmb yi ndax gën dinañ gëj ñoo sëriñ say ànd di fotowu fañ leen di fat doo fa mën a dugg lañ leen di defal duñ la ko defal accès ba ñuy am doo ko am gone gi bëgg sëriñ bi teg ko foofu nag moom it ndax du roy mbër yi ndax bu ëllëgee mu am loolu ci sëriñ bi da ci am yoo xam ne lañ ci bëgg a wax doo ko ci mën a wax ñun ñëpp ay murit lañ sëriñ Touba rek lañuy ñu yaakaar dëkk bi keppe lañ bëgg a warmaal waaye am na ci loo xam ne nag

dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen